Fica aí. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf moom a delluwaat tribunal Bougane Gueye mu njëkku la Sénégal journal bi dañuy wax ne ma garda garde à vue ndax tuumaay joxe xibar bu dul dëgg di diffusion de fausses nouvelles turbine nako diffusion de fausses nouvelles kay amu ci li am modi premier ministre Ousmane Sonko génn na wax ay waxam bugan Gueye dani génn weddi ko lolé rek motax ñu bëgg ko yobbu kassa waye du lenen yene kay bi nañu bañ koy convoquer mom bugan Gueye dani ñetti mbir lañ ko don topé muy diffamation injure publique ak diffusion de fausses nouvelles waye bañ ko auditionné ba noppi ci lañu ñu ñaari tuuma ya muy tuumay diffamation ak tuumay injure publique diko topé toppee diffusion fausse nouvelle té nak amul fenn fuko enquêteur yi wané luy firndel diffusion fausse nouvelle gi ñu koy waxal waxi Ousmane Sonko yi mu weddi ba tax ñu convoqué fekk ko yéen kaay bi nañu bañ ko laajee joxe na preuve yi mu sukkandiku ba weddi ko ñu ne ko ndax tey bu ñu demee ba ci biir gis ne li nga wax amul ndax di nga jéggalu Bougane Gueye Dany ne leen xalaatuma ko ak jéggalu bu waree am ñi mu war mooy fonctionnaire yi manipuler chiffres yi l'observateur mi xëy di ñu baaxee détails yi aju ci audition bi ñu doon defal Bougane xamal nañu ne bi ko enquêteurs yi dégloo ba pare tàppe seenu PV teg jox ko ne ko signal leen di yot du lu ndaw Les Échos mi laaj ndax ñoom ne kii di Bougane Gueye Dany ak Cheikh Yérim Seck seen benn Cheikh Yérim Seck ak fa mu jóge ba weddi wax Ousmane Sonko ci li mu waxoon ne déficit budgétaire bu réewum Sénégal mi ngi toll ci 10 xëy na dañu ko wax ci xëtamu njëkk Dakar Times ne ko bu bëggee dégg-dëgg daal état de droit moo tàmbalee na sax ci réew mi ci nguurug Jomaay Faye ak Ousmane Sonko arrêté convoqué gi ñuy def jëme ci ay journaliste ak i opposant lii quotidien mi ngi ñuy wax ne Sonko ak Jomaay dégguñu ca jàmm ne muy waa atel projet 3 di ñu ci jukkil Seydi Gassama di ñu ci jukkil waa ATEL ak waa coalition Takku Wallu Sénégal muy Bougane Gueye Dany di Cheikh Yérim Seck bés bi le jour mi ngi ñuy xibaar ne ba ñu leen di auditionné li ëppoon ca laaj yañ leen doon laaj mi ngi tënk woon ci waxi Ousmane Sonko yi ñu weddi coordination des associations de presse di CAP ak Reporters sans frontières journal bi nee nañu ñoo ngi sàkk ñu bàyyi Cheikh Yérim Seck mu dellu ci ñu gis ci xët mu Faye ba ñu yegsee ci nguur gi ba léegi juguñu ci di def lu yàq démocratie réew mi anki dina nañu nguur gi fi jógee di goog Macky Sall ko doon ŋàññee mu di di jàpp nit ñi tëj ci kaso yi ndax délit d'opinion maanaam wax sa xalaat ñi fi nekkit aw nañu yoon wi yoon wi ñu jël ñoom ñi ci régime bu bees bi l'observateur mi ngi ñuy wax ne buñ ko wàccul mën na leen yàqal lu bare bare ci élection législative yi ñu jëm journal public mi seetlu ne gëm ak bëgg maladroit yu ñu gis ci ñoom bokk na ci nit ñi ñuy xañ seeni liberté ñu ne déet na waaye heure bu ñu xëyee njëgu dund gi di gën di yokk yokk yu jéggi dayo dëkk bi amul kaaraange insécurité chômage bi di gën di yokk géej gi dëkkee rey ndax jeunes yi jëlaat gaal yi di lay ndaxi accident ëllëgu réew mi lëndëm këris ëllëgu Aliou Cissé ci bopp équipe nationale Sénégal bu football yem na fi journalisé ko nañu waa ministère des sports ñoo ko dàq dàqin wu liggéey bu am solo te rëy ta rafet bi Aliou Cissé liggéey ci bopp équipe nationale bu Sénégal teg na ci di ko gërëm ba ko Aliou merci gàcce ngaalaama Touba Darou Salam Karo Prestige seen lee débébé Doudoun ncia